voilà salaamaaleykum tout le monde ñi ngi ziar ñëpp ah, di bëggé gaay yi wax ñun ñi ngi ñëw tay euh, pour soutenir euh, suñu frère musulman yi chrétien yi tout le monde par rapport au gendarme que loi française yi ñu bëgg imposer quoi ci suñu suñu suñu Sénégal donc ñu ngi nii di dem di fekk ci gaay fofu on est pas loin on marche pour ñu yàdde ñu ngi ziar ñi bëggee ñu wax sénégalais ku ñu mëna soutenir nga ñëw soutenir ñu wax leen que Sénégal ben Sénégal la on est ñun ñëpp ben lañu ñu amul lu ñuy séparer amul lu ñuy diviser salaamaaleykum ma jox lamb yaa ko tàpp. waaw bi laal ma lumière bi flash bi moom flash bi laaloon na ko waaw teel GoPro No, no, no. Kamu dapat awasi. Dokumen dapat awasi. non à des voix. On dit non à l'interdiction des voix. On dit non à l'interdiction des voix. On est au Sénégal, ne sont pas en France. On dit non à l'interdiction des voix. On est au Sénégal, ne sont pas en France. mais voilés, les voilés, les voilés, les voilés, les voilés, les voilés, les voilés, les voilés.